Sénégal moom day réew moo xam ne ci bëri ci ay rumeur la ñuy dox. te règlement de compte bi dafay bëri yàgg ci dimension boo xam ne foo ko takk weesu na ko. mais dañu sant yàlla bi xalifa général ki nga xamante ni mooy ndawam. moo yor kàddoom Cheikh Mamadou Bassir indi ci ay leeral léegi. kon jàpp naan ne soxla wutoon moo doon ci tontu sax. ndax la ci seex Cheikh Mamadou Bassir leeral doy na sëkk. Euh, mbir yi bu ñu wax Tuubaa dafa am nu muy doxee bu dee lu jëm ci sëñ bi ñëpp xam nañ ko. mais dafa am président commune commune ku yor communauté organisation Magal Touba. Mhm. ki ñu moo adressé lettre président. Mhm. di sàkku président présidence. yombal leen kin far place ñu dalal fa ay gan mhm. ak jox leen ay woto pour mën a jëli gan yooyu kooku du président comité d'organisation bi te dañ ne léegi Cheikh Mamadou Bassir nee na euh, yoonu murit ak comité d'organisation bi demandé wuñ ci état dara kon loolu li ñu war a njëkk xam mooy lettre boobu fan la bàyyi ko ak ku bind lan moo tax mu ma leen xamal rek kooku ci du ma ne ci politicien Macky yi la bokk. mais poste ba mu doon occupé Macky Sall moo ko ko joxoon. ñu wàcce ko lu matul semaine ci gannaaw. waaye la ay ay ay responsabilités mu jeex fa mu nekkoon. kon bu xëyee xëy génn information bu toll noonu jàpp naa li mu ci jublu dëgg-dëgg mooy mettre en mal état bi ak yoonu moom. mais ñëpp xam nañ ni waxuma la sax lu jógee ci Cheikh Mamadou Mountakha mais lu mu jox ndigal porte problème mu jaar ko fa mu ko war a jaar loolu état suñu ko Cheikh Omar Diagne bu ñu doon demande dara ci jaar ci koy adressé directement moom moo indi ay leer mhm. yoonu murid seen interlocuteur du Cheikh Omar Diagne mhm. amul lu ñuy soxla di ko jaar ci Cheikh Omar Diagne kon loolu moom même moom bu gisee ab lettre mu tontu ci tontu li ci tontu moom moom la engagé. mais li wóor boor mu muy son excellence président Bassirou Diomaye Faye. muy premier ministre Ousmane Sonko duñ gis lu jóge ci sëñ Mountakha. wala lu jóge ci woon Mouride ñu koy gàllankoor loolu mënul nekk. kon donte lettre bi fu mu war a jóge jóge wu fa mais tontu lii ni ñu ko waroon tontu tontu wul noonu mais daal damay xamal yoonu Mouride yëpp. di xamal waa Touba loolu du loolu moom du information ndax lii ñuy wax tey ji daaw amutoon daaw état Sénégal dalul benn vingt-quatre place joxu leen benn oto kon bu ñëwee ba ren ñu bëgg ko jabali si bëgg ko yóbbu fu mu yóbbul alhamdulilah bi Cheikh Mamadou mais nañ xam ne lettre bi ki ko bind ak publier gi ko publier ak politicien la moo nekkoon Macky Sall foofu ci jidda nekkoon consulant kon jàpp naa ne liñ ci dugg lépp mooy jéem mettre en marche yoonu murit ak gouvernement bu bees bi te loolu jàll ndax ñëpp gis nañ xalifa général de murit seero yu bépp soxla bu état bi eh, bu bu bu comité organisation bi tegoon ci kaw taabalu gouvernement bi. respecté nañ ko à dernier CRD bi dégg nga ñor comité organisation loxo. dégg engagement yi xam ne jëloon nañ ko kanamu ko. li ci des nag mooy ñu ko def ñoom la engagé li ñu ci jublu woon na duñ ko jàpp. ndax tey jii bu fekkoon na sos bi dañ ko génne 14 heures 15 heures yoon mu indi ci ay leeral. suñ gannaaw di fekk.